jërë ngeen jëf ami téléspectateur people 221 yi ñu suivre ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di amaat mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ah, di nuyu suñu kilifa di nekk suñu kilifa day eh, di ñaan réew di Sénégal yàlla na suñu borom jàmm ku ne gis na li xewoon démb ci lamb ji mu di diggante Sa Thiès ak Reug Reug vraiment nekk lamb ju neex combat amateur vraiment kenn merul xanaa bu nit ñi di mer kay ah, ci yenn anam yi nga xam ne am na fa rek la ñuy mer tey nag ñu jàkkaarloo kii nga xam ne mooy coach su euh, Lamine di coach su euh, kii nga xamante ni moo di Sa Thiès fas yéene si ak moom waxtaan coach dañu lay bàyyi nga nuyoo ngi lay siiwur. Euh, maa ngi lay fay bu baax di nuyu monde entier di nuyu Sénégal gi yëpp yëpp di nuyu axlu làmb rawatina géej géejawaay gii nga ñu fekk maa lay nuyu. d' accord kon su fi people 221. sa kër. waaw sama kër di ñaan yàlla yàlla na dem mu doon site numéro un. wala mu nekk si site yi numéro un yi ko sax laay ñaan comme te yéen ñëpp laay ñaan numéro un yàlla doon site boo xam daal yéen ñëpp da ngeen ciy gis seen bopp. mais tey ku si da nga nekk en forme nag quoi par rapport ak émission bee passé ma jëloon la nga xamante ni nee nga ma fi maa ngi Abass Ndao euh, ragaloon a génn mais tey dafa mel da nekk en forme quoi. non boobu bokkul yow sax. c'est que da loo xam ne communication bu bari bi laa bañoon ci combat bi rek. ndax xam nga combat da ngay toll am na combat boo xam ne ni soo fa toll am ci loo jóge da ngay xam nga li tubaab naa reculer pour mieux sauter. Mhm. dañoo nekkoon ci recul. si recul boobu lañ nekkoon. d' moo tax nag xam nga rek ma leen doon daw quoi. d' accord mhm. euh, bala maa ñëw ci li xew démb ci stade bi ak làmb ji dama bëgg nga nga nga nga nga nga nga ndil maay ay explication ci démb combat bi ni mu demee euh, nga xamante ni làmb ju mel nii gëj na fi am. ci taaru làmb ji. Mhm. ci décoration yi. Mhm. Euh, taaru làmb démb. waa neexoon na nag ambiance bi neexoon na trop si gis-gis nii mais xam nga man lii sama problème mais dama bàyyiwul xel démb dara man dama bàyyi xel Sa Thiès de trop man démb sama làmb yëpp sama bët sama xalaat sama lépp si Sa Thiès rek laa ko tegoon. gis naa loolu man bàyyiwuma woon xel làmb ji ak ay rëg-rëg ak ñi mu àndal ay jege jegere ak seeni i jëfin man sama lépp si concentration bi ma indi démb si caasee sax laa ko defoon te bëgguma lu ko dindi. Mhm. Mhm. d' mais làmb ji après noonu bi ma toogee nag ba gis seetaan image yooyu xam naa ne neexoon na nag. Mhm. ambiance beeg yooyu neexoon na trop. d' accord ma ñëw ci ci làmb ji. Euh, démb li Sa Thiès bëree laa bëgg nga analyser ma ko bala maa ñëw ci consignes yooyu. waaw Sa ni mu bëree mooy li ma la dañ ko digal rek muy te man dama koo waxati ko. wax ko ko si buntu stade bi wax ko ko waat si bi door de stade bi wax ko ko guddi wax ko ko bëccëg. muy ñëpp nee nañ da ngay dal si kaw man mii xam naa ne attaquant nga te dangaa xam kaa da ngay dugal mais dimbali ma li laay rasul damaa bëgg léeg nga may téel bal bi ba ñëpp xam ne Sa Thiès téye na ko nga doog ko dugal. Ah, waay <laughs> loolu laa ko digal. <laughs> mooy su arbitre sifflé dafa round d'observation combat lañ wax combat lañ wax bëre dóor temps round d'observation daa am ci lépp mayel ma ko 30 secondes une minute su bare bari nga def 30 secondes. nga déglu ko su deful dara ah kaa yaa ngi noonu ubbeeku na dugal te lim def lim ko digal bi mu ko defee sunu borom defal nañ si ndam ndax loolu lañ ko digal ndax man damaa gëmoon ni Reug Reug day songu Salif. Mhm. soo xoolee contact yeeg entraînement yi yëpp da ngay laaj mbër yi ko jàppale woo yëpp bëgguma sax tudd seen tur ñoo xam ne bokkuñ ci écrit ñëpp dama na leen songal leen dee leen ma ko songal ndax Sa Thiès daa mën a lii. tànk ñu bëri jàpp nañ nag jëlikat la. mais ay tànkam loo ci laal nu ko neex lay bëree. te démb wane na ko. Reug Reug ñaata kilo la. bari na est-ce que matul 200 kilos ndax li mu jël ak yi mu jël si combat bi. Mhm. jël na ko ba mu jeex. mënu mhm. ci dara. Mhm. daa mën a tànk. ñu ngi sax am na ñu bari ñoo xam ne tiitoon nañ avant combat bi. Mhm. mooy dinaa ñëw ci loolu après bi coow li amee Sa Thiès ñu doon def xataraa yi ñëpp ni kii est-ce que du bëree loolu mu mel ni démb da koy yàpp à 100 pour cent. waa tey ji xataraa yi yooyu yëpp nit danga koy bàyyeeg boppam ndax bis bi toll na foo xam ne du lépp ngay forcer. Mhm. man li coow li bareeg bareeg yooyu yëpp gis nga ba mu xataraayoo dem rek engagé ji. mooy booy Reug Reug bi mu ko sottee suuf. ndax ñoom ñoo ko tooñ ndax démb am na entraîneur Reug Reug bi lu jig jaag moom la. ndax non du ma xaar nga ñëw fa dama ciy wax. Mhm. entraîneur Reug Reug bi luy jig jaag moom la ndax Balla Gaye warul toog ànd ak raxam di def li muy def tooñu Reug Reug néew Reug Reug sa tànk bi tax na suuf néew ko dara di romb di dem di wane ginnaaw gis ngeen ko yëpp image yaa ngi ni mu tulli ko. mais ci règlement. Mm-hmm. est-ce que Balla Gaye am na droit dugg ci géew bi. waaw lépp du ma ci jabaar loolu moom waxi waa CNG la wóoruma nag na droit dugg ci géew Balla Gaye mbër la te mbër géew bi mbër yee tax ñu defalal leen ko. Mm-hmm. Balla Gaye kay am na droit dugg ci géew bi. Mm-hmm. ndax mbër su amuloon dugg dugg daal si géew bi stade bi suñ dugg see lu ñuy njëkk a def ñëpp ci géew ba lañ jëm. te mbër yaa ñëpp a ngi fa. kon mbër am na droit dugg ci di géew bi sama jàpp boo xaw ma nag lu waa CNG wax. ndax ñoom ñooy kilifay làmb ji mais kooku moo indi lépp entraîneur rëbb mhm. lu fa am démb moom la mhm. si la Sa Thiès xataraayo benn booy rëbb bu sotti ko suuf si la ko Sa Thiès songee bi mu koy song gis nga bëli seeg ñëpp li téemu xale mais teewul man ba ma ñëwee dugg seen diggante de jël naa risque boo xam ne gis nga rëg-rëg mu ngi yor bee jën ni jël nga fa kuu sax jël yor bee non soñ ñu maa dóor moom suñ ma dóoroon rëg-rëg maa ko mën rëg-rëg français la man xaw ma ne woon daa ragal kuu bi ma ñëwee di dugg seen diggante si laa taxee di dugg seen diggante xëcc Sa Thiès ne teewul bi ñu ko defalee li ñu ko defal yëpp fekk suuf suñ ko kii dugg si bët yeeg yëpp ñu defal ko eh, na jeex na gis nga sa xol bi nii nga ko yëkkatee wàcce waat ko moom mel ni galaas lii doo ko bërewaale. mu ne ma loolu dëgg nga ko wax foofu. waaw wax naa ko nee naa ko ah? man du ma am pression si làmb. non comme ñun ñuy seetaan en fait foofu ni coow li jugee yow am nga dalu di waxtaan ak moom. ci 95 su ma la xamee affaire laaj ko mu ngi nii di ma dégg laaj ko lépp lu may wax ak moom benn baat laay wax ñaar wan ko ginnaaw mu ne ma waaw baax na. ndeysaan man maa ngi moom bu dul doole sax dañoo am benn complicité sama diggante ak moom même bu dul affaire de entraîneur ak mm-hmm. daa am benn complicité bu ñu am ñun ñaar. Mm-hmm. te wax naa ak moom te wax dëgg yàlla liñ ko wax yëpp def na ko. Mm-hmm. neewoon naa ko lu mënti xew. sàmmal ma sa tànk yi te xam day ñëw. soo ko dàqee day ñëw. ñu gis si avant combat bi. coow bari woon. ñëpp jël Reug Reug ko favori. ci côté entraînement nan ngeen doon préparé ba mën a tenir kii di nga xam ne mooy Reug Reug xam nga Reug Reug lu tax ñëpp joxoon ko favori mooy dañoo gëmoon ni carrément dañ ko gëmloo ni woon nuñ ko waxee Reug soo gisee ñu jox ko favori dañ ko gëmloo woon ni Sa yaa ko mën mhm. te moom loolu la doon doxee mhm. looloo waral loola mhm. moom it mu taxaw ne dix mbaa moo mën suñ ko booleeg Sa mu daan ko am na site bu xam ne nii génnewul lool daf maa metti si suba gi lànd bi Médoune TFM wax na ma 10 combats Reug Reug nee na moom ma ne ko ñun benn rek lañ soxla muy premier combat bi suñ daanee rek yi neuf yi si des yëpp nañ ko daan te yàlla defal nañ sutura ñu daan ko première bi ma doon ñaan. Mhm. première jël bi du moom seen loolu la xam premier jël. première jël daan nañ ko. leneen lañ su tego suba suñ démb suñ bënoon mu daan ñu di neuf yi des sax garaawul ah. ne defe naa première bi la ñuy accordé. mu mel ni combat bi tamit bëri woon coow face à face yi xëppante bi mu mel ni démb boo xoolee taaru làmb am na mais boo xoolee ci côté waa Géejawaay dafa mel ni sot bi dafa xaw a bëri ci côté ci côté ci côté ci côté Sa waaw waaw seet naa fa image yoo xam ne man dama waaru sax mais lépp rek nañ xam ne fii Sénégal la te yàlla rek moo fi nekk. gis nga Sa Thiès ak Balla Gaye ay doomu jàmbur lañ te yàlla moo leen def lim leen def. Mhm. mais gis nga am na si bëri yoo xam ne faqa sali dama koy gis si biir làmb mhm. mais ñun dañoo yàgg ci làmb mhm. damay ree rek. nañ xam ne liñ mel sunu borom moo leen ko def ay doomu jàmbur lañ. ni Reug Reug di gagné pour yóbbu këram. dundal ay waajuram Modou Lo Ama Balde. keneen ak keneen. nañ nangul lool ni ñii li ñuy am dañ koy def pour seen ay njaboot. ak seen i waajur ak ñi leen jege. ñu mën a dimbali ñu dimbali leen. mais wax dëgg yàlla sot bi mett na trop trop trop trop trop trop. ba ñun buntu baak ak yu bari yoo xam ne mënuma ko wax ndax man amatuma droit di wax loo xam ne. lu ma wóorul la. Mhm. wala erreur. Mhm. mais nañ xoolaat. Mhm. xam ne Sa ak Balla Gaye ay mbër lañ. te dañoo bokk ci làmb. su fekkee nag dañ leen see bëgg nañ leen si génne. nañ leen ci génne. Hmm. Hmm. ndax man affaire damaa xamatul lu muy nduru man Sa Thiès li ma ko wax rek moog Balla nee naa ko waxuma CNG waxuma journaliste waxuma amateur ñoo ñëpp mën nañ leen bëgg mais mbëri si boppam. Hmm. ñoo mënut a di gérer ñii. mbëri Mm-hmm. mbëri si boppam ñoo mënut a di ñii. Mm-hmm. mais nañ leen nangul rek ne suñu borom moo leen defal loolu ko du ñoom. Mm-hmm. nañ leen ko nangul mbëri. mbëri si boppam. ñoo ko mënut a di ma ñëw ci côté ci côté xeex bi mu mel ni Sa Thiès combat bi nii daf ci daf ci daf daf ci xeex xeex bi loo leen ko préparé parce que yaa ngi naan rek rek <laughs> français la en fait. parce que Salif da cee def bokk ci def ci lépp déggoo li ma la bi rek di tuus ñun dañoo génnoon doon doxantu ji. doxantu doxantu xam nga Sa Thiès génn na stade bi. waaw dem dañoo génn doon doxantu man moom rek ak sama oto ak Fils de Balla. ci làmb ji ah. si làmb ji ñun bi rek di tuus xamuñu sax lu xew ñun génn nañ boobu génn nañ stade bi doxantu ji nañ. Sa Thiès moo ji ma ne ko. <laughs> waaw waaw Lamine Lamine génn doxantu ji xam nga làmb ah, ngeen a gis Sa Thiès si géej benn 30 minutes boo xam ne gisoo leen Sa Thiès si stade bi dañoo doxantu ji woon. dëgg dañoo doxantu ji woon. dem nañ ba caaro yu ñëwaat ci lamb ji ah. dem nañ ba caaro yu ñëwaat laa la wax bi muy tuus dañ doon ko quoi dañ doon doxantu noonu mais tamit mooy li ma la wax rek làmb làmb la rek dañ ko war a daan daan ko. Sa Thiès ñëw na xeex na xeex bu jaar yoon boo xam ne loolu lañ ko digal. Mm-hmm. mooy lu mënti xew. Mm-hmm. sa gauche bi dee ko bàyyi te téel ma sa droite bi. Mm-hmm. crochet gauche droite jam. jam na fa rëg rëg jam boo xam ne gis ngeen ko ba mu nekk ku rangit rëg rëg titubé na taxawaat. te boobu xëy na Sa moo ko suivrul ak sori na ko. Mhm. mais foofu su duraat bi ñëwoon Reug Reug Sa Thiès a Sa mhm. ndax benn benn ñemewul Sa Thiès benn ñi Reug Reug parewul physiquement. Mhm. en tant que coach boo ci waxee dinaa ko gëm. yëg-yëg Reug Reug ñemewul Sa Thiès te parewul physiquement ndax physique yombul. rëy yomb na de. mais pare physiquement cardio bu intense yombul. Reug Reug démb bëggoon naa Sa Thiès bëreloo ko quatre-vingt-dix minutes ba waa àdduna gën koo bàyyi ñu xam ne làmb ji liñ foog du noonu. Mhm. champion la nag waxuma ko pour critiquer mais na jéem a liggéeyaat la mu doon liggéey ba sunu borom di ko may ndam. Mhm. na nekkaat ci moom rëy. Mhm. am na solo de mais doole moo gën a wóor. deuxième fois bi nga xam ne jël na tànkam. Mhm. boobu li tax lan moo tax Sa bàyyi parce que boobu jàpp nañ daan na ko rek moom. daan naa la ba pare lu ma fay nekkati di sonnati. dëgg la de lu ma fay nekkati di sonnati. Mhm. jarutul woon sonnati Sa Thiès daan na ko te boobu découragé na si làmb ji. Mhm. xam na ni jeex na jeex na. ak lu mënti xew xam na ni CNG yoon rek lay atte. te yoon rek lay doxal te li bëgg dina ko am muy dinañ ko jox victoire am. ñun xam nañ CNG. amuñu caaxaan faraluñ kenn ñoom. liñ bëgg dinañ ñu ko arbitre dafa sifflé wala sifflé wul. non Sa Thiès nee na arbitre dafa sifflé ndax boobu man daf ma xaw a sori tuuti daf ma xaw a sori Sa Thiès nee na bi sifflé na sax looloo tax mu bàyyi. Mhm. looloo tax mu bàyyi. Mhm. mais foofu daal li ma la mën a xamal arbitre sifflé ñàkk a sifflé li am am na moom. ñëpp gis nañ ko àdduna ñëpp ko gis Sénégal nag lañ nekk ñëpp mënuñoo àndandoo fenn. Mhm. lii am am na. te yaakaar naan mooy li ma la wax président arbitre yi Babacar mu ngi fa woon gis na. Bira Sène. maa ngi koy nuyu au passage. gis na ñoom ñëpp gis nañ ñun daal fi ne nii def nañ liñ ñu wax ñu ngi toog di leen xaar mhm. démb après bi loolu amee ñu bari xaw a joxoñ baaraamu tuuma waa CNG ah. yow ban jàngat nga def ci loolu waa CNG dara ay nit lañ rek nañ leen bàyyi rek ñu gën a toogaat rek xalaataat ta xam ne ñoom ay nit rek ñoo fa nekk duñ ay malaaka duñ ay xublu samaan mhm. te ñoom yoon lañuy ñuy àtte CNG ñoom duñ ay arbitre mhm. CNG joxewul décision arbitre yi ñoo jël seen décision ñoom ñoo ko joxe CNG suñ paree ñoom ñooy foqor ñi li yi def. Mm-hmm. wan leen da a juum. Mm-hmm. tegaat leen si yoon. Mm-hmm. te maa ngi leen di xaar si loolu. ma ñëw ci ki nga xamante mooy coach su Reug Reug bi xam naa fa xaw a jeexalee. Euh, yéen nga xam ne ay coach ngeen est-ce tey coach war naa taxawee taxawaay boobu noonu man sax fii laa doo nga xamee ni course la pour man dafa yor ay cimikaay. non non quoi man nii suñu association annexe bële bu baax di nuyu président Mbaye Diallo ak secrétaire Ba. Mhm. mais man kii jàpp naa ne bokkul annexe de. Mhm. non bokkul annexe ndax ñun entraîneur yi xam nga la lañ xam. mbër yi ñoom seen biir dañ rente mais ñun fuñ daje dañuy saafonte. Mhm. dañuy kaf dañuy ree ku ci sa mbër daan wala que sa mbër daan dañuy jug félicitante mhm. dem parce que chaque dimanche ñu nekk ay réunion ñun ñooy nekk suñu biir mais kii moom du entraîneur moom. Mhm. donte mais euh, Balla Gaye tamit. mais euh, tamit CNG tamit lii sax da cee baax sax ndax ñun ñëpp fexe nañ ba def suñuy formation boobu la plus de six ans ñu ngi koy def. Mhm. man mi am naa initiation amaat naa entraîneur am naa première degré. yooyu yëpp génn def naa formation ba am premier degré entraîneur ak yooyu yëpp mais CNG tamit ñu ñuy waaj a defaral suñu licence mooy entraîneur bu amatul premier degré doo si toog doo toogati 16. Mhm. Mhm. Mhm. ak li def démb Balla euh, donte tamit bataille psychologique am na. waaye est-ce que na loolu. Balla Gaye loolu si làmb ndax Reug Reug moo ko njëkk a téye fi mu tàmbalee bi ñuy présenté ñoom ñaar. xam nga rëg-rëg ak Sadio fa la Balla Gaye duggee taxaw Balla Gaye ngi jàkkaarloo Sa Thiès sax xam di ko defal li mu koy defal seex ak rëg-rëg ñu ngi koy wax yoo xam ne ni waruñu ko wax ba arbitre yi ñu ngi taxaw di dégg Babacar ak ñoom ñëpp du ma fenn c'est fii laay waxee Babacar ne ko rëg-rëg man du ma sa morom respecté ma arbitre bi non Balla Gaye moo wax ah, la waaw ne ko soo wax nga waxanteeg sama raq mais man yii nga may wax di ma dépassé man du ma sa morom jox ma cër gi ma la jox yaag seex mi wax na leen loolu mhm. mais teewul booy noppiwuñu ñu ngi wax lu ñuy wax rek bëgg a yàq làmb ji bis bi lañ bëggoon yàq mais mënuñu ko yàq ndax waxoon nañ ñu ko. Mhm. waxoon nañ ñu ko de. bis bi mënuñu ko woon yàq. Mhm. si lañ rëg-rëg bëgguloo loolu def dara ma doo la yaakaar labe man mii rek dem na ba benn instant mu may mooy toog. Mhm. ak di ma wut ak gis na ma fi ma taxaw di ñëw ba foofu di wax ay waxam di def yu ne entraîneur bi di saa mais faalewu ma leen. parce que ñii xam naa ne man yaakaar naa ne ci li ma nekk njiit. njiit da nga war a mën a tenir. man mënuñu maa wax ñoom lu ma déstabiliser. wala lu ma yëngal wala lu ma merloo. def nañ lu nekk nag. Mhm. xëppee nañ fa suuf def nañ lu ne. Mhm. préparateur musique yi suñ bëggee def seen affaire yooyu si anglais sax ñu ne ko fii doo fi defee bëggee ni ma xëccaat ne leen kaay leen. Mhm. ñu ne entraîneur dem toogi ne moog Sa Thiès ñooy des Sa Thiès neewoon na ko. bis bu arbitre génnee suñ digg suñ diggante dinaa la teg loo xam ne nii. di nga xam ne doo ko attan te teg na ko rëg rëg da ngeen ko mës a gis mu arrière. démb de xanaa. Ali Ali rek la deful de <laughs> waaw. d'après bi loolu amee nag ñu gis tamit loo xam ne vraiment ñu bari ñu ngi koy ñaawlu. Mhm. muy xeex yi amoon ci stade bi ak chaise yu njàq ak yooyu. Euh, en tant que coach su tamit en tant que amateur loolu ngay wax ci loolu. non loolu ama est-ce que am na suñu ay amateurs yu ma gis ñuy wekk chaise ndax mer. non non gars yi ñoo mer rek. sénégalais yi mer rek. Mhm. mais garaawul na xam ne làmba demee noonu rek. Mhm. arbitre bi daa juum daa juum. Mhm. amul leen loo xam ne ni maa ngi koy condamné wala dara daa juum daa juum. Mhm. mais CNG na gaaw def liggéeyam rek. Mhm. ndax moom rek moo mën a fay coow li nu mu gën a gaawee fi ne nii. d'accord mu ngi noonu ah moo nekkoon sama invité tey euh, mu di Lamine Lamine Golo vraiment nekk coach su école de lutte Balla Gaye nekk disponible tamit ci sunu côté ñun waa People 221 du ñu def dara lu dul ji la jaajëfal euh, tey sa mot de la fin ci émission bi. xanaa di leen di leen sant di leen wax yàlla yàlla yokk sit bi rek li ngeen ci bëgg yéen a ko xam yàlla na ko sunu borom defal di ñaan Sénégal yàlla na fi yàgg su fekkee wax naa fi leen lu ma war a wax loo xam damaa juum maa ngi jégalu bu baax di encourager Reug Reug te koy xamal na xam ne làmb moo demee nii mhm. lim fi daan ci mbër benn mbër daanagu ko fi mhm. muy Fatick Joal Adrien Senghor arène nationale daan naa daan ba daan ñëpp mhm. mais Sa Thiès moo ko daan ki ko daan mën na daan ku ne te di après lay xam ne ki ko daan champion la dina daanaat ñeneen ak ñeneen. na gëm yàlla te xam ne moom na génn tey ji waroon na leen mën a woo def déclaration. Mm-hmm. ne leen daanu naa. boobaa ñu bëri dañ koy naw. ñu bëri dañ koy gën a Ama Balde lay laaj fi mu doon li Ama Balde man waxuma loolu. buy ma Sa Thiès laay wax si kii na nangu ni daan nañ ko mu jeex Sa Thiès maa ngi koy encouragé. te koy wax si li mu nekk nii liggéey bi na si gën a toog kon ne ndax Sa Thiès la. Hmm. na gën a nekkaat ci liggéeyam. Hmm. sunu borom defal ko jàmm. Hmm. yokk ko jàmm may ko ndam di gërëm xaritam yëpp nag. xaritam yëpp maa ngi leen di gërëm. ñoom ñëpp seeni ñoom ñëpp soo fi nekkee rek damay lim damay lim te damay juum. Mhm. di gërëm magam Balla Gaye de mhm. taxawaay bi gis nañ ko. Mhm. ñun ñëpp tamit gis nañ ko Balla si mbedd bi la doon fanaan. waaw parce li nga wax mën naa ko dëggal euh, open press bi ñu ne bi gars yi demee ma taxaw fa ne ko Amar Rodé mënoo may garde kër gi. déggul ma la moo doon garde kër gis maa moom ñoo fanaan ba bërset si mbedd bi noonu lañ doon nekkee si mbedd bi. am jour yoo xam damay dem ñëw am ay business ay affaires yu ma doxi quatre heures jot ma ñëw ma ne ko Omar man tëdd naa damaa sonn. ñun ñii sax nelawtuñu woon mbedd mi. Mm-hmm. gis nga kër bi ngeen ñëwee noonu gis nga jour combat bi foofu ni mel lépp maag moom rek ñoo joxe ordre mooy teg sunu bakkan kenn du fi dugg man démb damaa dem ba jël affaire entraîneur tegee ne damaa nekk si organisation nekk si ab sa mystique nekk si gis naa la gis naa la démb ay poto meew nga koy xëpp ci oto bi dem naa man bay sotti gàllaaj saaje démb ci mikaay bi xaaju gàllaaj yëpp maa doon sang maa doon sotti parce que dama poto meew yi non man dama di lébu rek. poto meew la la man lébu laa dama neexal samay maam. waaw man lébu maam Jara sama maam la. waaw Lëg Daawur sama maam la. ak ñeneen ak ñeneen. ndeysaan dañ ma wan ni rek. dama leen doon neexal balaa may dem stade. pour wàll leen ni ñoom nee nañ ay lébu lañ. mais man gënuñu maa doon lébu ndax pay laa sant. Mhm. di jaraaf nag dëkk sa mbot. loolu la woon rek mais maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tamit. Mm-hmm. danaan leen Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. di gërëm ñi jàpp ci combat bi yëpp yëpp yëpp yëpp su ma limee damay juum. Mm-hmm. damay juum maa ngi gërëm particulièrement Lat Diop. Mm-hmm. Lat Diop jàpp na ci combat bi jàppaay boo xam ne nii. waaw na ko gën a yokkaat daal. te xam ne affaire baax na mais des na. maa ngi koy gërëm bu baax moom ni mu nekkee géejawaay nii jeunesse bi ni mu leen di jàppale ak mbëri man maa ngi koy gis bu baax a li nga bëgg sa biir xol yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal loolu man Lamine maa la ko ñaanal mhm. di gërëm sunu maire tamit Ahmed Aïdara mhm. gàcce ngaalaama mhm. mention spéciale wax dëgg yàlla affaire yi moo ëpp solo te am na yéene am na pas-pas bi Ahmed maa lay ñaanal li nga bëgg sa réew yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal Aziz Ndiaye Pape Mama Fall nag mention spéciale andaw Pape Mama Fall laa la wax kooku su ma waxee sax dina ndur la mais Pape Mama moom xam na xam na day def ñun ñuy gis. Mhm. muy ànd ak man di def muy gis. Mhm. li mu daj ci combat bi gisuma ko daj ci combat bi. Pape maa ngi lay ñaana li nga bëgg. yàlla na ko sunu borom defal. Mhm. yàlla nga dem ba nekk directeur u ndax yow li nga yor yaa ngi koy partagé ñi nga ko war a partagé. yaa ngi jàppale yaa ngi def lépp. gën a la muñ. yokk muñ te xam ne njabootug làmb nag ñoo met sut ci mbëri ñoom ñëpp say doom lañ. jàppal rek yow sam waa ji nit baax nga àndaw tamit maa ngi koy gërëm bu baax. lépp lu ko waraloon ak Sa Thiès moom moom du bàyyi. Mm. day def rek day def rek bañ na ko arrêté. Mm. ñoom ñëpp gërëm naa leen di gërëm Cheikh Parkin. Mm. sonn na si combat bi trop. Cheikh. Cheikh na si combat bi si booyu golf bi mobilisation beeg. Mm-hmm. yëpp sonn na si di daj coono si Balla Gaye ak Sa Thiès. Mm-hmm. bëggal leen boppam nag te daw si dara. Mm-hmm. Cheikh maa ngi lay gërëm bu baax. maa ngi lay bu baax a baax a baax bu baax baax. di gërëm ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp nag. su ma limee rek damay juum. di gërëm sama waa moom xam na xam naa. su ma ko waxee rek su ma fi nekkee di wax rek damay juum. maa ngi koy gërëm moom sama waayu bopp la sama DG la sama xarit la. Mm-hmm. li nga bëgg yàlla na ko sunu boroom gën a yokk. Mm-hmm. te dinañ la dégg incha allahu rabbi. Mm-hmm.